Sénégal mbokki Kaolack man la Mbacke Mboup dëkk fii Kaolack Boustane bokk ci militant wu Mouhamad Ndiaye Rahma kontaan ci benn bis boo xam ne tey Mouhamad Ndiaye leader boo xamante ne nit ku baax la dañ koy sant di ko gërëm ci euh, jàppale gi mu jàppale population bi ak askanu woo ñu wooñu ñu jox sukkaru koor soo xam ne su duun la kuñ ko jox ku ci nekk boo yeggee sa kër di nga sant yàlla bu baax a baax def ko ndimbal defal ñu ko ñun ñi nga xam ne ni ñun ñooy waa Kaolack daf ko jël euh, tasaare ko mboolem koo xamante ne rek doomu aadama nga boo xam ne yaa ngi soxla suukar soosu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ko ñaanal mébétam yàlla na ko yàlla sottil président Macky Sall ñu ngi koy ñaanal moom tam lim mu yéene ci Sénégal yàlla na ko yàlla sottil defal ko ndam bu mag a mag a mag fii ci Kaolack ak ci Sénégal yëpp dafal ko ndam lu rëy rëy rëy ndax lii dafa rëy ñi ñaa ngi jógee fii ba Coofak ñi jógee Kabatoki Sibassor Bustaan euh, quartier yi ci Kaolack yépp nit ñi jógee nañ fu nekk ñëw tey jël si li nga xamante ne nii mooy xéewal gi nga xam ne moom la leen président Mouhamed Ndiaye Rahma defal lool nag dañ ko ci sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu yokk dajale doomu aadama yi ñu ñëw nga yëkkati sa alal jox leen ko di leen jàppale rek te yàlla tax ah kooku nag duñu am lu dul ñun ñëpp ñu ngi tas ci ginnaawam pour jàppale ko. wàcc na léegi sax dem ci handicapé yi fekk leen fa jox leen fa enveloppe yu duun ñëpp dañoo kontaan loolu rek jaamu yàlla gu mat sëkk la moo tax kuy def lu baax kooku kon ñun waa Kaolack yëpp dañu war a ñëw pour jàppale Mouhamed Ndiaye Rahma kenn warta des ñu ngi koy ñaanal di ko gërëm président Macky Sall moom tam ñu ngi koy ñaanal yàlla jox ko ndam jox ko ndam ci Sénégal ba lépp loo xam ne ni sumb na ko ci liggéey yàlla na ko yàlla sottil ci barke Ramadan barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñun Sénégal yëpp na dañu war a jóg jàppale président Macky Sall mbooloo mi ngi nekk ci wetam yëpp di ko ci jàppale suñ ñoom tata nday saaxoog ñoom nday abeeg ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi ci wetam rek di ko jàppale ñoom ñëpp dañ leen si ñaanak yàlla defal ko ndam bu mag a mag a mag fii ci Kaolack ak ci Sénégal yëpp wasalaam jërëjëf